fii ci màggalu safar gi incha allah saa bu ñu déggee ci màggal rek lañuy ñuy tàmbalee waajal màggaluk déwén ngir màggal gi nga génn liñ ci xalaatoon a def bëgg ko cee def gàllankoor yi nga xam ne am na ci nga fexe ba màggal gii di ñëw du ci am loolu nag ay xalaat la ay waxtaan la ay réunion la ngir di mën a gën a jekku liggéey bi ci wóolute ak yaakaar ji nga xame ne moom la ñu dénk ñoon ak ñu ñu àndal ci liggéey bi. intaanaa nag day liggéey bu yaatu ndax lépp loo xam ne euh, jumtuwaay la jëm ci màggal gi maanaam des na ko soxlawoo ci gan ñi lépp nag dara desul lu nit di soxla daal ci këram des na ko fàggu fii ba nga xam ne su ñëwee fan yi mu fi am du wuute ak nekk nekk ga muy nekk këram walla fii sax dàqal ko këram ci lépp loo xam ne dina ko soxlawoo ci wàllu nekkinam ci néeg li ne dalal frigo bari cee nekk waxtu nekk mi ngi am ndox mi ngi am fruit euh, siyaada jullikaay yi carax yi ngay sol parfum mu daal lépp lu soxla war a des na ko fàggoo ngir nit ki su ñëwee mën a nekk ci condition yu baax beneen xaaj bi jëm ci wàllu lépp lu muy xewloo maanaam ay añam reeram ndékkeem ak yu ni demee yooyu yëpp intendant mooy kiy saytu euh, loolu ngir mën koo jébbal waa restauration ñu koy togg ñu mën a euh, añ waxtu ci di añ ci waxtu di reer ci waxtu di ndekk ci waxtu loolu it liggéey bu fasantikoo la ndax waañ yu bari la menu bi nga xam ne moom lañu dressé ngir ñu mën koo togg ci juróomi fan yi kenn ku ne bala ngaa tëdd danga jot sa dépense suba li nga war a togg ci nombre de bool bu dee añ nombre de plate nombre de plateau reer xar ñu war a lakk ak lépp loo xam ne jëm na ci teraanga daal eh, des na fanaani ceeg ka koy togg ba bu xëyee mën caa jublu mooy tax ñu mën a añ ci waxtu reer ko ci ndekki ci waxtu waaye lépp loo xam ne jëm na it ci wàllu lu ñuy naan boisson ak fruits yi mel noonu yi tamit ci waa commission hébergement it ñoom quota bi nga xam ne soxla nañu ko ci waxtu ne li leen ko jébbal ngir lool mooy accompagner añ yi ak reer yi ba nit ñi di yëg na daal woote bi Sëriñ Tuubaa woote woon moom ci sant la ko yàlla ci bisam bi te la ci yëpp mu tudd ci teraanga loolu moom gan ñi fi ñëw bëgg nañu yëg ne teraanga Sëriñ Tuubaa jooju moom ak sa si ñoom loolu moom bokk na ci li nga xam ne dénk nañ ñu ko ñu ngi ciy def kenn kàttan nag ngir mu gën a dëpp ak bëgg-bëgg boroom ba wóolute bi ñu am ci wilaya bi jox leen ko loolu saa bu ne ñuy yëg ne ñu ngi koy feeñal muy cofeel ak ko bëgg bala ko xam-xam ba bëgg lu lépp mën a yéwén ci niñ ko bëggee woon. internat bi nga xam ne jiite naa ko cinquante personnes ñoo ci nekk ñooñ ñoo li ma la wax ñooñ ñoo koy saytu ndax waañ yooyu ma la wax waañ bu ne am na oto boo xam ne juróomi nit mooy ne ci oto ba ngir di jëli añ di jëli reer waaye du yóbbu it ndawal gi nga xam ne. moom la war a togg waxtu ci nekk loolu oto bu wàññiwu ne am na oto boppam am na oto yoo xam ne it ci wàññi yi nga xam ne moom lañ lakk xar yi ñoom fa lañ féetewoo ngir yóbbu xar yi ñu war a lakk di ko jëli waxtu ci nekk dépôt bi nga xam ne it moo fi ne nga xam ne lépp ci ci ci ci matériel moom la ñuy moom la ñuy soxlawoo am na dépôt bu fi boo xam ne day jege ci mi biir kër gi moom lépp dañu jege ba dara du du yeexal liggéey bi. magasin yi it am na ñoo féetewoo ngir ñoom waxtu wu ñu leen laajee liñ soxla ñoom fekk nañu noppi na fa fas yéene koo joxe loolu nag personnel boobu cinquante personnes lañ ci àndal moo tax liggéey bi kenn ku nekk doonte fan yi bari na waaye du coono bi du bari ndax kenn ku ne am na ku lay wuutu ci barab soo fa ne ko baa boo sonnee ba dara du tardé dara du yeex loolu nag benn sous commission bu rek muy intendant ñoo am effectif boobu mais yeneen commission yi mu tudd mel ne euh, ak yi ak sécurité restauration ñoom am nañ ay effectifs yoo xam ne jàpp nañ ñoom lay defar seen liggéey naa nga mu mën na ko loolu it ña ca di ko doxal ba lépp rek ni ko commencé bëggee ci wàllu doxal liggéey bi ci wàllu gaawal ko ci wàllu dëppale ko bëgg-bëgg borom ba gan ñi fi ñëw dara vraiment ñu nekk ci condition yu baax yoo xam ne dana yëg ne moom sëñ Tuubaa moo moo moo woote te wooteem bi. Eh, taxawu nañ ko ba kenn ku ne gis sa bopp ci bés bi tal ndax loolu rek mooy li am solo. Daaru Marnaan moom eh, daanaka fi la gan ñu ëpp fii la ñu nekk ndax am na cent quatorze chambre ñu ngi fi yoo xam ne ay gan rek lañ fay dalal di dal yu mucc ayib bâtiment yu mucc ayib boo ci duggee ci néeg yi da nga xam ne wax da yàlla néeg yu dëpp jamono la ba ku ne mën na faa dal. bâtiment boobu nag vund bâtiment bu ne danga fay teg personnel boo xam ne lépp lu aju ci yitte bâtiment ba ñoo koy taxaw ñoo yóbbu añ ñooy yóbbu reer ñooy lal napp suñ paree ñu débranché bu ñu xëyee ñooy ñooy defar néeg yi yi ba lépp daal sell loolu dafa dafa am effectif boo xam ne moom lañ fa ndax boo xoolee dara mën naan six bâtiment ñi ngi fi ñaari bâtiment yi benn bu ne am nga quarante-huit chambres am na boo xam ne am na vingt deux donc loolu kon personnel bu bari la laaj waaye bu farlu it nag ba euh, mooy tax juróomi fan yi nga fi ne wax yàlla doo ci sonn doo saay ba li tax ñu teg la fi nga matale ko mooy gan gi moom saa bu ne lay gis nit ku nite nit ku ànd ak bëgg ci li muy def nit ku ko yéene li mu koy jox bari na ci wetam di ko déglu ngir lépp lu xam ne ay soxlaam la mu taxaw ci loolu nañu fi noonu lañ fi nekkee boobaa gu nekk ni mooy liggéey nag bu xaw a yàgg ndax 2009 ba léegi ñu ngi ci kon defe naa ne li may wax rek kon tollatuñ ci jàng mais dañu toll ci tar yi li nag waroo gàtt loo xam ne mokkal nga ko xanaa fexe ba waxtu ne booy tar yi tar yu gën a rafet gën a gaaw gën a jekk ba ka la jàngal moom saa boo gisee xelam dal ci lim na jàngaloon xam ne fàttewuloo ko. xanaa di sant yàlla rek ni mu tàmbalee woon waaye di di jaajëfal Serigne Touba bu baax ndax lii lépp. liggéeyu Serigne Touba la waaye di sant bu baax sunu jàmbaar ji Serigne Cheikh Amadou mbakke ndax gis-gisam bu rëy ak xam sëriñ tubaam a xam fi àdduna dëgmal jëm moo tax mu fàgg woon mbooloo mi di fédération bi mu dem ba 87 Serigne Mohamed Mbacké dolli ci wilaaye ndaw ñu góor ñi ak jigéen ñi kon ñooñu xamoon nañ fi jamono jëm waaye xamoon nañ fi yoon murid jëm moo tax bi ñu ba soxla ay nit ñu def loolu ay ndaw. fekk ñoom waajaloon ndaw ñi ba mën nañ ko loolu nag kon ñoom ñoom lañ ci sant ci seen xalaat yu rafet ak xam sëriñ tubaa ak organiser seen bopp organiser taalibe yi ba teg lañ ci yoon woo xamee ne que buñ ci jaaree danañ jariñ seen bopp jariñ seen réew waaye danañ topp ndigalu Serigne Touba ba lañ ci bëgg ñu am ko kon moom lañ ci ci sant gi di ñaan suñu boom doole ay leer taas taas liñ seen barke ci barke Cheikhul Khadim di sant Serigne Moustapha Assoubouré mi nga xamee ne que doomu Serigne Cheikh la jiite fédération bi taxawu ko. ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëñ Mouhamed Mbacke Taïf moom it jiite wilaay yi da yàlla ñu ngi leen sant bu baax ak jëwriñ ñi nga xamee ne ñoom la ñu àndal ci liggéey bi sëriñ Ousmane Mbacke sëriñ Cheikh jiite commission organisation bu fédération bi en même temps di coordonnateur u màggal safar ñu topp ci moom di ànd liggéey bi kon jëwriñ yooyu nga xam ne ñoom la àndal ñu leen sant bu baax di ñaan suñu borom gën ñoo dimbale gën ñoo boole ba sëriñ Cheikh Mbacke fa mu bëggoon ñu yegg fa ci ak bennoo ak bëggante ak soppante